acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk nat bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci delloowaat rek kenn ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax nag fa seen dalaat beneen kilifa nga xam ne kàngam la doonat koo xam ne dañ koy présenté ti ndax saa bu fi jaaree rek bi dañ ciy kontaan bu baax ci nit ñi di taatan waaye li di xew jamono su joxee xam-xamam nga xam ne da koy gëstu saa su nekk ni réew mi di doxee ak gis na actualité yoo xam ne la cay soqee ko da ciy yaatal bu baax a baax nit ñi dañ ciy jëlee li di kontaan kooku mooy Cheikh Ablaye Cissé dinañ yaatal bu baax a baax ci ponk yu bëree bëri waaye kilifa gi laata may def lenn damay bàyyi nga nuyoog mbokk askan wi bismillah alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi lazi anzala ala abdihi kitab alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam seex gannaaw bañ sant yàlla julli sinant bi sallallahu di sant suñu borom subhaanahu wa taala di ñaanal ummatul islam bi yëpp yàlla dëgëral diine lislaam <laughs> tarixa tijaan ak mboolem banqaas bu jullit jàpp rek yal na yàlla ma yàlla may di sa bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi tarkal jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Ablaye Cissé comme ni ñu koy defee saa su nekk dina leen euh, jàppale baaxe leen bu baax a baax ci wàllum ñaan ak paj bi nga xam ne suñu borom am na lu mu ko ci dénk dinañ ci yaatal waaye dinañ yaatal ci lépp loo xam ne xew-xew jamono mu di actualité rawatina làmb yi nga xam ne taxaw na làmb yëpp dina ci waxtaan euh, waaye dina ci joxe li nga xam ne gis na ko ndax ni borom saa bu fàttaw rek am na loo xam ne dina ko ko dénk mu mën cee yaatal ñi nga xam ne saa su nekk dañuy bëgg xam fi jël bi féetee dinañ waxtaan ci làmb yëpp waaye lu ci mel ni Bombardier ak Reug Reug dinañ ci waxtaan loo ak kii di Boy Niang dinañ ci waxtaan procès Ousmane Sonko bi ndax dina ci am ndam la 12 wala du ci am ndam loolu dinañ ci waxtaan bu baax a baax am na lu mu gis ci réew mi ci élection yi dinañ ci yaatal bu baax a baax ba ci juróomeelu président bi dina ci dut baaraam. acca kilifa gi daa foo xam ne foofu laan na moon tey ñu tàmbalee mu di ci wàllum seet say mbir mu di seet wala xaar ko ba lépp looy dugg rek mën cee xam la cay nekk ëllëg ci laa bëgg ñu dellusiwaat cheikh bi. waaw alhamdulilah cheikh comme ni ñu koy waxee jamono ju nekk rek seet bëri na ay façon bëri na ay bunt. boo demee ci euh, Sénégal ak ci sous région Afrique bii. ci dëkk yu mm-hmm. bëri boo demee lu bëri ci wàllu seet dañ koy jëm. ba ci tubaab bi sax. Mm-hmm. ci ay chiffres dañuy seet seeni mbir si ay si wàllu maanaam dañ koy déchiffrer. waaw lu wér am na ñuy seetee kurus am na ñuy seet ci ndox am na ñuy seet suuf am na ñuy seet ci mandarga yu bëree bari bëri. Mm-hmm. ñun yàlla dimbal nañ ñuy peeg ci xam-xam ci wàllu bopp yu bari tarkal waaye seet bu ñuy gën a jëfandikoo mooy seetu biddiw. macha allah sa tur sa turu comme ni ma koy defee. déchiffrer ko xam sa biddiw si lan la ma wax la ne la lii boo sukkandikoo sa mbir dina jug mhm. wax la ne yaa ngi dund jamono yi ci nangam ak sàngam wax la lan mooy sa problème si wàllu àddina tarkalla xool ba xam sa wërsëg lan la méngoog si wàllu sarax parce que nit ku nekk dafa am tabian mhm. gannaaw wax naa la doomu aadama yàlla daf ko bind si ñeenti tabian walaay mooy comme ni ñu koy xamee lu wér ko waxee mhm. ngelaw ak suuf ak ndox mhm. ndox mhm. kenn ku nekk rek am nga si boo demee tamit am na si si juróomi biddiw wala <laughs> juróom-ñaari biddiw yoo xamante ne jamono ju nekk moom mooy ñëw si bis bi waaw waaw mi xataa rij xamr zoxru masarix mën nañ ko lim ba mu jeex waaw biddiw yi benn bu nekk dafa waxtu bi muy ñëw moom nekk douze waxtu yi ñëwaat benn bu nekk dina ñëw ñaari yoon si bis bi mooy <laughs> nekk vingt quatre heures si bis bi moo tax kenn nit doomu aadama bu ne moo xam nga judd <coughs> euh, bëccëg wala nga judd guddi rek waaw yaa ngi ci benn si biddiw yi macha allah parce que biddiw mariix bi dina ñëw si bëccëg bi dina mhm. ñëwaat tamit si guddi gi bis bu nekk waaw kon bu buñ xamee ne yow si si si si si fii nga bokk rek mhm. dañuy yomb trop pour ñu mën la wax ne fii boo fi jaaree. di nga mën a génn di nga mën a def nangam ak sangam. lu mënul ñàkk la si doomu adama am lépp loo xam ne dagan na rek. te jullit mhm. war ko def rek si wàll seet. ñu ngi koy jëf parce que ay borom xam-xam dañoo jàng. wér te dañoo roy si suñuy sëriñ. Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiyallahu taala. macha allah waaw waaw. lépp dañ koy natt si sariya. Mhm. parce que loolu la jàng xam-xam da jëriñ. lu wér buñ nattee ba xam ne lii méngoo nga ak sariya. Mhm. ñu ñu ñu xuus si si. tarkalla lépp loo xamante ni safaan la yàlla buñ ko dégg yàlla buñ ko gis. macha allah alhamdulilah rabbil alamin acca kon mu ngi noonu amut euh, benn jiixi jaaxa ko ci soxla rek da ngay koy woo numéro bi mooy daw na suufu ber suufu barre d'écran bi yaa xam nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk bitim réew soo jëflanteek moom sa xol dina sedd guy ndax suñu borom denk na ko xam-xam boobu acca waaye ñëwal ma ci cangat bu solo bi nga xam ne yaa ngi koy def mu di càngatu cat bi ak lii di wàllum làmmiñ waaw wax naa fi ma ne sama émission bi paase ma ne ñu bëri ñu ngi am gàllankoor si àddina mhm. yaakaar ne dañ leen a liggéey moo wax la ne liggéey doomu aadama yombul moo wax la ne nit heure bu jógee pour liggéey doomu aadama rek ku ko jege lay doon lu wér ku ko jege soit xataa doom sax dina liggéey yaay mm-hmm, mm-hmm. yaay dina liggéey doom waaw jabar dina liggéey jëkkër jëkkër dina liggéey jabar waaw jarbaat dina liggéey ñi jaay loolu yëpp ku la mm-hmm. jege moo koy xam lu wér ma indi la ma ne la ma nga xamante ne yahud yi bëgg nañoo liggéey yéen te yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dañoo ñëw si mbindaanam laaj ko karaw mu jox leen karaw yeneen yi parce que amu fenn fu fuñ ko mën a jaar lu dul si ku ko jege mhm. bañ def si luñ siy def waaw dalil la lu wér la mu ngi fi jàng nañ ko xam nañ ko mhm, mhm. kon liggéey doomu aadama yombul waaw waaye doomu aadama ñu bëri ñu ngi am gàllankoor cet moo leen koy def gis nga fan yi xam nga dama fee toog ma ne jigéen ñu amul jëkkër na ma dimbale leen wax nga kenn xamul ñaata nit ñoo ñëw maa ngi dimbale de wallaay billaahi lazi laa ilaaha illaa yàlla may may ndam lu wér mais lu ma si gën a métti mooy dangay gis nit day ñëw ba si yow mhm. nga yëkkati garab bi jox ko mu war ko jëriñoo waaw mu demam yàgg ay réglam génn ah. nga xam ne ndeysaan maanaam am na ñoo xam ne seen gàllankoor mu ngi des si ñoom ba léegi mhm. waaye terewut man tamit damay dëgëranteeg loolu bopp ba ne la rek waaw bàyyil ba mu jeex rek mhm. incha allah ma defaat lu ñu war a defaat macha yàlla may ñu résultat si kàttanu yàlla cat dina sonal doomu aadama waaw da dina am ay mandarga yoo xam dina ko def si yaram ko wax si écran pour pour di jaar feneen. lu am solo waaw waaw. foog ñu xoolal la pour xam ne lii cat la wala nangam la wala nangam la. wala <laughs> nangam la. cat kat la day jàpp doomu aadama. Mhm. cat dina. jàpp doomu aadama ba si biir bàmmelem lu wér nga wax kon cet lu am la yonent bi moo mhm. am na wala lisaanu xaqun làmmiñ tamit lu am la kon yàlla na ci yàlla musal acca euh, kon ñu dox ba léegi wéyal cangat baa ngi noonu xam naa loolu moom jar naa wuti euh, fépp foo xam ne yaakaar nga ko seen bu am na lu mu ko ci dénk ndax cat moom su reyut euh, semmal ni ñu koy waxee ñëwal ma ci jaaro bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def waaye daam yeneen yoo xam ne indiwaat nga ko ci gën ko cee fàgguwaat sa waat sa waa jaaro man du ma bëgg sax <laughs> di wane ay mbir waaye boo gisee moo wane sunguf bi waaw parce que dafay sunguf boo xamante ne ni ñun ñu ko ut xam nañ ko ba pare ah. sunguf bi dañ ko kaasi ak ay parfum macha allah te su ma ne la yi am na si boo xamante ne ni lu ma ko jëndee si si xaalis sax mhm. nit ñi dinañ wax ne xanaa déet lu wér du ma ko tudd parce que liggéey moo ko ne ni ñun pour ñu am ko problème la ñuy daj mhm. moom la ko weer si naaj boobu sama salon laa ko weer mhm. parce que pour kii bi jàpp ko tarkalla damay jël jaaro bi liggéey ko sa tur liggéey ko sa biddiw liggéey ko sa tabian lu am solo jël sunguf bi jox la jël cangat bi jox la ne la sangoo ko juróom-ñaari fan soo paree nga jël jaaro bi takk jaaro bi mu ngi tudd jaaro zamaan ah. bu nga toll jamono ju nga toll waaw yow sa maanaam ah. sa morom mhm. du la raw ah, ah. sut say maas la kon sa morom du la raw macha allah kon ñoo bokk ak jamono ñu ne rek dina la bàyyi xel ak ci loolu mënta yëngatu yëngatu macha allah dina la may bayra mhm. dina la may maanaam maanaam boo liggéeyee du ma la mhm. dina la may alal waaye boo nekkee liggéeykat yàlla dina la may ubbeekaay am am dina la yomb te sa xaalis sa alal du tasaaroo tarkal la di nga am tur waaw te nit du mën si yow dara jaaro bi loolu lay jëriñ tarkal la jaaro bii nii nii nii nii xaw ma xanaa ko amul waaye képp ko xam. waaw doo rëcc loo ko doon amee. macha allah alhamdulilah kon mu ngoog. Mhm. jërëjëf acca ñu dox ba léegi wéyal lan nga leen di baaxee lu bokk ci wàllum xaalis ndax xam nga ne gars yi dañoo bëgg xaalis. am na beneen bu may wax damay wax jamono ju nekk damay faral di génne ma ne sangat bi. Mhm. am na sangat boo xam ne sangatu at mi lañ ko tuddee. waaw mag ñi dañ ko naan tuddee mos mucc. Mhm. léegi nag ñun dañuy sukkandiku si xam-xam. waaw pour mën a dimbali ñu nga xam dañoo gëm ne 31 décembre wala bu décembre jeexee si la at bu bees du dugg si. mu ngoog loolu suñu réew noonu lay doxee. <laughs> am na ñu gëm tamit ne bu tamxarit di ñëw si la at bu bees bi dugg si <laughs> la koy jox nga koy sangoo. <laughs> jour bu nekk da ngay sangoo benn feuille jour bu nekk da ngay sangoo benn feuille musiba ak balaa. waaw yàlla dina la si musal si at bu bees bi dugg si. at bu bees bi dugg si lépp lii xéwal. ak am-am ak mucc yàlla dina ko teg say loxo loxo moo tax sangatu at bu bees bi mm-hmm. defar nañ ko génnee nañ ko mm-hmm. mu ngi fi te dara taxul ko jug lu dul jaamu yàlla yi tarkalla kon parce que dañoo jàngi woon yàlla teral ñu mm-hmm. lu mu ñu yàlla teralee mooy xam-xam xam-xam bi am lu mu ànd ak kon foog ñu dimbali jaamu yàlla rek mu am solo foog ñu dimbale jaamu yàlla te jaamu yàlla mënuñ leen a dimbale lu dul ñoom yaakaar bu nga xamante ne am nañ ko suñun macha allah foofu rek la ñuy sukkandiku pour mu dimbale jërëjëf euh, Cheikh Ablaye Cissé jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yu am solo yi ci kon ñu dugg ci xew-xew jamono mu di actualité ak ni réew mi di doxee saa su nekk waaye dañ ciy tàmbalee làmb ji door mujjee lii di politique bi ni muy doxee ñëwal ma ci combat bi dox ci diggante rëg-rëg ak kii di Bombardier. xoolal nañ ñëw ñëwal ci politique bi après làmb gu ñu bàyyi ko. noonu <laughs> ñëwal ñëwal ah foofu nga na mu ñu tàmbalee. waaw waaw nag ma ci tontu nag am leneen lu ma wax si incha allah. allah jërëjëf euh, beneen procès jógaat na de mu di procès bi nga xam ne ci président Ousmane Sonko la mu di le 12 décembre bi nga xam ne dëgmal nañ ko. le 12 waaw te chiffre boobu moom lu muy jàpp ndax ndam la ci gars yi di jëlee ji. wala bi yoon bu dee le 12 la. bu hmm. dee am na. Hmm. chiffre bi. waaw ah. chiffre bu baax la. si hmm. moom. <laughs> parce que day nekk chiffre 3 3 fois 3 day nekk chiffre 9. kon chiffre 9 bi day ñëw. 12 ah. la neewoon naa la chiffre 9 bi. dafay favorable jamono ju nekk rek. la si kilifa. rawatina kilifa boo xamante ne. doo doo defee douze un plus deux égale trois da koy multiplier. par trois. tarkalla chiffre neuf bi dañuy te nee lépp lu yàlla bind ci kaw suuf. waaw ah. chiffre neuf lay doxee. Ah. kon projet bi mën nañoo xaar bu dee am na. Hmm. bu dee projet bi am na. waaw day doon loo xamante ne dafay favorable ci ñoom. Ah. du amee ñu jàpp ne président Ousmane Sonko mooy gagné ci procès bi. waaw bu dee am na. Mhm. chiffre bi day baax si moom. lay xam nag. Mhm. quant à léeg lii loolu moom mu ngi sax xam nga des fois di nit dina dara dina war a am. Mhm. doomu aadama si ay pexeem. parce que yàlla moo may doomu aadama pouvoir boobu. doomu aadama jaalee fa fàggagal ko. moo tax lii may def. parce que dama koy tuddee discours boo xamante ne ndaw la boo xam dafay jógee ko si man. pour dem si mbooleem ku nga xamante ne Sénégal la. Sénégal jamono yi ñu toll. xam naa sax fa la ñu jaaree ñu tëj émission bi su ma waxee pare bëggatuma nga laaj ma leneen gi nga Sénégal jamono ñu ñu toll mhm. dafa soxla ay ndawam si naka ci mooy damay wax ne bépp ndaw mhm. na nga jug nga taxaw xam ne jamono ji nii ñu toll nii sa réew da laa soxla réew moo xam ne lépp lu am si àddina mhm. yàlla may ne la ko yàlla may ne la gaz yàlla may na la pétrole. Hmm. loolu loolu si ay nit yu baax la jógee ko. parce que nee naa bépp réew boo xamante ne yàlla may na la ay nit yu baax. Hmm. nit yooyu bu ñu faatoo ba am si kaw si biir suuf téeméeri at. Hmm. seen jëmm yi la yàlla di tëjëliyaat di ko def mu nekk meññantal boo xamante ne ni. seen set ak seen doom dañ koy jëriñu. te loolu am na fii Sénégal. c'est mhm. réewu maam Cheikh Amadou Bamba la ñuy wax. Mhm. réewu maam borom Touba. Mhm. réewu maam Seydi Alaaji Malick réewu sama maam Seydi Alaaji Amar Ndaw ak keneen ak keneen réewu maam Baye Niass. lu wër ñooñu réew moom teraanga dafay am. teraanga jooju nag foog Sénégalais yi jëriñoo ko ni ko yeneen réew yi ñuy jëriñoo seen teraanga. tarkal la te dañoo gis ne Sénégal dafa tardé. waaw yàlla may nañu ay borom xel. yàlla may nañu ay borom jom. waaw yàlla may nañu ay borom yi ñoo xamante ne ni lépp luñ dugg. mun nañ cee réussir. tarkal la waaw jamono yi ñu toll politique politicien dafa politique xaraamul lu baax la. <laughs> Ah, mais politique politicien yii. Ah. ma xam ne bi ñu koy defee quoi. nuñ koy defee. <laughs> politicien la ñuy def mooy saint bi firi xaj. <laughs> loolu dafa war a jeex ci Sénégal. ñi jël nit di ko jaay. waaw jël parce que jaay sa mo jaay sa bopp. Mhm, mooy mhm. lan seex. waaw nit ñëw si yow jox la mille francs ak t-shirt. nga dugg si kaar. Mhm. su ba ngoon jot dem di ko taaj. loolu dafa war a jeex Sénégal. mais si kenn ku nekk jël say matukaay sa gox. waratul am. yàlla dafa bind doomu aadama laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwiim waaye nag teg si lu am solo mooy su ma radana asfala saafilin képp ku nangoo dem dugg si kaar di tàccu nit suba ba ngoon jot mhm. yaa ngi bokk si su ma radana asfala saafilin réew mi soxla nañ waaw ñu ngi nduk ndok ñu ngi ndokkeel du mhm. njukkal président Macky Sall mhm. si liggéeyam waaw def na ay tali waaw def na ay pont def na sat def na def na def na def na def na ngàcca ngaalaama parce que foofu la liggéey mën a yem mais ñu ngi ñaan yàlla beneen président moo xam ne bu ñëwee dafay tabax ay doomu aadama fexe ba ndaw ñi di jàng. Cheikh Sénégal ngay dem. waaw buñ ne ne deux mille vingt trois. deux mille vingt trois si jamono jii. waaw Sénégal ngay dem nga feebar. ñu ne la boo amul cinq mille yoo jëndee ordonnance docteur du la gis. gis naa nit bu yor malaatam di wër ak moom ba mu dee. ndax lan problème mu. cinq mille bu mu jëndee ticket. wala ndax lan hôpital dañoo grève loolu dafay war a jeex. jàng waratul. sooxna tagat soogoo ci Sénégal waaw parce que xamul tax jàng mi du sooxe mm-hmm. élèves yi ñu jàng parce que système bu ñuy jàngalee moom moo primé mm-hmm. dañoo war a fexe ba suñ mag yu baax yu ñu am suñ mag yu riche yu nga mm-hmm. xam ne am nañ ko seen i jàng seen i tey boo demee ba Nigeria dañ fay jàngale téere Mame Mbaye Niass radiyallahu taala anu nga dem feneen ak feneen noonu pourquoi pas Sénégal mënut loolu ñoo am ay mag yu riche di jàngale seen taarix américain bi lu tax doom doomam réussir parce que dañ ko gëmloo ne ko yow yaay ko nga xam ne yaa gën si àddina bi dañ ko jàngal taarixu ay maamam mhm. lu am solo muy dund dund dëkkam mhm. loolu nag moo war a am fii macha allah moo tax maa ngi jël ne mhm. na kenn ku nekk jël sa responsabilité xam ne si xare nga nekk wallaay xam ne si xare nga nekk si jamono jii dañu taxaw bu baax nag bay sa ci tool bi ñu bay suñu waar ci tool bi xool ba pare ñu ngi wax candidat yi waaw ndaw ñi na ngeen am fulla na leen candidat yi jaay projet jaay leen discours bu baax bu mën a dem mais amul kandi lii déedéet. wax mm-hmm. kenn nangu. <laughs> na nit ñi toog si plateau yu mag yi. Mm-hmm. jël seen i dem si journaliste yu mag yi. Ah, mm-hmm. ñu jaay seen programme sénégalais yi. macha yi am fulla ak fayda. Mm-hmm. xool ku si gën la programme. Mm-hmm. ñu jël ko ñu fal la jiital la suñu réew. te buñ la jiitalee. dañoo bëgg nga mel ni Omar ibn Khattab. keroog ba nga xamante ni fal nañ ko amirul muminin. dafa wax ne inni qad wulitu alaykum wa lastu bi xayrikum. yéen a ma jël ngeen jiital ma si. ma jiitu nekk seen kaw. waaye nekkul dama leen a gën. su ngeen ma gisee si dëgg. safaan mhm. na ngeen ma na na ngeen na ngeen ma jubbanti noonu la buur wala meer mhm. buur da nga war a dem uti sa doomu bàjjen wala sa doomu ñu ah, koo xam ne ku dëggu la si mhm. sa famille bàyyi wala si sa famille yaay mu jagala di la conseiller te ngay déglu ay waxam macha allah gis nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba nga xamante ne xare Uhud xare xare Badar taxaw na dam ñëwee ba mu taxawee dafa am ku ñëw si moom digal ko yenente bi déglu ko mu jëfee lu ko kooku wax tarkal la loolu moo mayeen julli ji ndam loolu moo taxoon lislam am ndam ba léegi buur nag keroog ku demee ba nangootul déglu ku ko conseil boobaa torox tànga ñëw na waaw waaw torox tànga ñëw na mm-hmm. Macky Sall jàmbaar la mm-hmm. mais yàlla mayul ko sens nit ju ko jege mm-hmm. man fu ma gën a xeebee nit mooy si élection yu député yi <sighs> amul benn député boo xam député bu bokk si pouvoir bi nga di campagne naan su ngeen ma falee ensemble national damay dugal loi bi déedéet ñoom programme mu président Macky Sall lañ doon campagne non foofu la gàttaxal yem nit da ñëw nga jaay sa tey fu may wax ak yow ni Sénégal am na mm. député yoo xam ne dañ leen jox fal leen ay député ndax dëkk sàngam ah. te seen waa dëkk ba pour ñu gis leen sax problème la est-ce que loolu yoon la déedéet kon nit ñi nañ am fulla mm-hmm. lii dafa war a jeex Sénégal dañoo war a xool nit ku leen doy jaa leen mm-hmm. programme bu riis mm-hmm. boo xam dafay doxal réew mi ñu jël ko fal ko te gis nga képp koo xamante ne fal nañ la tamit te luñ loo waxaat ak ñun defoo ko. dañ am ful la benn mandat boo ko amee. Mhm. ñu fol la fol sa morom. parce que mhm. loolu la réew doxee. damay dégg tamit beneen kaddu boo xam ne kaddu bu ma mënul dégg la. parce que loolu saaga gënu ko rëy. mooy ne dëgg la Macky Sall jàmbaar la parce que fu fekk réew mi am na fu mu ko yóbbu. ñi naan budul moom du baax. mais loolu loolu loolu loolu saaga la. Hmm. mais àdduna doxewul noonu. Mhm. nit da ngay ñëw fu nga yemale sa kër nga tàmbalee keneen ñëw sa doom bu ñëwee tàmbale ko pour mu dem si kanam fu mu yemale liggéeyam baax mhm. na bu keneen ñëwee tàmbale mais lu tax ñu naan ñu budul moom du baax mhm. kon loolu mooy ñun Sénégal nañ dem gës ay bàmmeel dëkk fa doy na waar jërëjëf acca ñu balla nga tënk ci résumé ñaari combat nga xam laaj naa la ko mu di rëg-rëg bombardier ak e, Modou ak Boy Niang la ñoom ñaar ñoom ñeent ñeent yëpp lu ci yàlla def rek mu nañ jàpp na mooy lu gën alhamdulilah loolu yomb na de cheikh bi yàlla baax na